ci wàllu rasmi bi muy sëñ Saliou moo koy jàngale ci wàllu daftar bi li nga xamante ni man son suñu borom moom laa fas yéene euh, jàngale ñu xam ne nag alxuraan karim yaakaar naa si xaadim wala si Moussa mi ko wax fii léegi xëyut xëy rek mel ni mu mel dañ ko doon bind ci kàddu moom alayhi salaatu wasalaam buñ bindee pare jàng mu déglu wér na wéru soppi leen ba mu jeex xam ngeen ne bi mu fi jógee itam ci jamono Abubakar Sadiq bi ñu koy bind commission la wutoon ne leen saa yu ngeen wuutee ci abaat lu waa Quraysh wax ma ngeen ci loxo ndax alxuraan ci seen loxo la wàcc ku ne xam ne Abu Zayd mi jiitu woon na bi ansaari la dégg nga am la dafa mel leen Abubakar waxoon dafa am ci seen biir am na ci seen biir masalan kalimatu lam yatasanna lam yatasanna am nañ ci xilaaf ñeneen nii lañ koy bindee waa Quraysh ne nii lañ koy bindee ñu wute ñu def yaa Abubakar newoon naa leen lu ngeen wutee ne waa Quraysh wax na ko def bàyyi la ci yeneen baat yu mel noonu da kon ñu xam ne alxuraanul karim daa am fu mu jaar ku di ci def ab liggéey bam ak agsi nii ba mu jógee ci loolu itam ci eh, Seydina Ousmane ba mu jógee foofu ci Seydina Ousmane radiyallaahu anhu itam bi mu ci moom jafe-jafe yu bari sëriñ si nga xamante ni bii ñoo mokkoor na alxuraan karim bi fi alayhi salaam jógee mag ñi ku dem ci benn dëkk ku nekk araf ba nga amoon ci alxuraan karim nga yóbbu ko fa nga nekk a salaam ne woon na ne unzila ala sab'ati jàng leen ci bu ngeen ci man wuute gaama diggante Seydina Omar ak Hicham Ibnu Hakim ci suratul Furqaan mu ne ko li ngay jàng lu alxuraanul karim Seydina uh, Hicham ne ko man Alioune Sall lii la ma jàngal mu poñe ko Alioune Sall ko bàyyi ko mu bàyyi ko mu jàng mu dégg mu ne Omar jàngal Omar jàng pare mu ne yéen ñëpp yéen a ngi ci yoon unzila ala sab'ati ahrufin loolu nag dégg nañ ko dégg ñu bari ndax mooy kee di musanna kee di jamu wala jiital lii ki mujj lii ah wala jigéen na lii góoral lii wala yokk baat bi wàññi bi waaye lool daal mooy ixtimaal lii gën a lëng lu ne nag wax nañ ko si loolu war na sëriñ si bi nga xamante ne bii maanaam loolu am na ku ne dem fenn ku ne nag araf ba nga jàngoon ci àll salaam moom nga yóbbaale te ku ne xam ne ab taalibe bi foo ko fekk sëriñam rek moom lay respecté mooy li ngeen xam ne rek ba tey ji arménie bañ fa nekkee xaw nañoo jàppante ci parce que ñëpp dañ saa daje ku ne di jàng masaram suratul furxaan yoo xam ne danga lii daal daanaka dana dana ñoom déggante wuñ ndax ku ne la la la sa la la sa sëriñ jàngal moom mooy jàng te fii ñëpp fi daje bañ coowee nag ah, saa waay ñëw ne ah seen Ousmane lii boo ci jógut day damay ragal la daloon nasaraay dal ñu xam Karim wax ci ah ñu dajewaat bindaat ko nag bind ki juróomi téere juróom benn téere wala juróom ñaari téere fu ci nekk ñu bu fa benn lu dul loolu ñu ne nañ ko lakk lu dul loolu ñu ne nañ ko lakk loolu la ñu woowee kitaab al umm boobu moo nekk Madina Munawara xamante ne bii lu ñuy woowee tafsiil ñàkk a jàng xam sa saala saailun langue Quraysh ñoom noonu la ñuy lakke ñoom duñ jàng xam sa saala saailun ay xays ay yaman ñoo koy jàng mais saala saa ilun xuraysh ni loolu lañuy jàng loolu mooy kitaab al umm muy riwaay warsh bii ngeen di jàng Madina Munawwara moom loolu ñoom la ñuy làkkee arab noonu la kenn ku nekk nag jàpp ci loolu alxuraan di dem di dem ba xam ngeen ne xam ngeen ne nga xamante ne bii moom moom moo féete woon riwaaya warsh bii nga xamante moom la warsh jëlee ci moom xam ngeen imaamu Malik da koo jàngal alxuraanul karim imaamu Malik jàngal ko Muwatta imaamu Malik nag danga naan mën nga ne moo indi fii parce que boo seetloo rek fu mazhabu Malik nekk riwaaya Warsh dafa ti saaro loolu moo ko waral ba tax na kon daanaka mën nga ne moom al maghrib wal arabi ba ba ci suuf ñëpp riwaaya Warsh ci saaro na fi trop ci ñaari eh, bu dee fële eh, xaaloon côté jëm Algérie jëm nale ti saaro na fa may daal jàppal maanaam daal xilaatoo maanaam naafian daal moom ci maghrib al arabi ba ci ñun ñi ñëpp jàppale ni moom lañuy jàng benn nag ndax an tarixi maanaam euh, warsh la wala xaalun la asbahani la wala azraq la loolu moom ay détails la waaye moom xiraatu naafi moom fii moo fi law da noonu mu lawe nag loolu moo ñuy indi ci xam-xamu bind bi kenn ku nekk maanaam rasmu ak xiraat dañuy ànd mënuñoo tàqalikoo ndax ka nga xamante ne bi mooy jàng wa wasa kee di jàng wa wasa kee di jàng saarion kee di jàng wasaarion ku ne xam na ne kon jàng ak bind dañuy ànd loolu nag moo waral ba yi ngeen gis yëpp yooyu am bi fi bi fi alayhi wasalaam jógee bi ñu demee ba teg ci daanaka dang naan daanaka téeméeri at parce que boobu ci mujj xilaafa maanaam maanaam amu yoon yi la ñu gis ne ñi nga xamante ni bi ñoo ñoo jàng doon ay arab pire bari na loolu ñu dugg ci diine ji te ñoom kat du ñuy du ñu ay naar seen làmmiñ du ay naar mënuñoo jàng lu ñu maa sut xam ngeen ne alxuraan karim danañ ci ñëw léegi ah, ba ko saaba yi di bind amutoon dara ñoom noonu lañ ko bind ab yax rek la doonoon ndax ñoom ci seen saliqa muy ni leen yàlla binde amuñu muskila ci jàng luñ maasut noonu lañ mel waaw ci jamonoy ah, abul aswad duwali booba ci la jafe-jafe yi gën a feeñ tolloog euh, Ziyaad ibnu Muawiya ibnu Abi Sufyaan mu Muawiya ñu gis ne su euh, zootul baraa gis nañ ci tënk ku ko yàq-yàq bu metti anna allaha bariu min al mushrikina wa suulu moom maas ko ci suuf xam nga loolu li muy firi ku ne xam na ne kenn mënu ko dégg fekk njëkk nañ ko ko wax moom mu gàntal ko dañ ne sax ziar moo def moo def moo def loolu ne benn waaye demal fële bu laa bal asul rombee rek na nga jàng suuratu baraa nga jànge ko nii ndax li may wax man xam naa ko Abdoulaye sama doom jii nii muy jànge awul yoon te ñàkk te ñàkk tomb alxuraan ji moo ko waral ba mu ko yàqee muy dégg nag mu ne subhaanallahi suñu borom fan lay bàyyee ab yónenteem waliyaasu billaah daal ni leen ci jóg daal di jóg premièrement li ñuy wooyee maanaam tomb alxuraanul karim foofu la tàmbulee moom moo ko njëkk a def tomb yi yoo tomb yoo xamante ne bii nag lam lam yete na moom tomb toon moom tombi maas la doon tomb tomb dafa am ñaari xaaj kon maa ngi ñëw ci dopt bi tomb dafa am ñaari xaaj moom nii la doon tombe nii nii yaa ngi yéen nii non non ya lañ doon tombe nii ñii lañ doon tombe bu dee maskayat ñu tomb ko benn tomb bu dee maaka suuf ñu ñu tomb ko ci suuf kon nga xam ne kon tomb boobu ñoom noonu lañ ko doon jànge bu dee bu dee ñaari maska ñu tomb ko ñaari tomb masalan shahidun shahidun dañuy tomb fii benn tomb tomb fii benn tomb tomb fii ñaari tomb ñu kaamil bi yëpp abul aswad def na ko nii loolu moo njëkk dem ba ci kanam ñu gisaat ne ba léegi jafe-jafe bi dañut parce que mooy baat lii doo lii nekk taa saa ba kenn xàmmeewu leen ñu ne lii itam nañ ci jox faaw kon ñu tomb alxuraan karim tomb yoo xamante ne bii ku ne dana xam ne baat bii lii la masalan lam yeta san ji ma ñëwoon léegi lii eh, yaxya ak asim ñoom ñoo ko ci def lii tomb yii ñoom ñoo ko ci def Yaxya ak ñoom ñoo ci def lii ñoom booy xool environ ay am daanaka ay 89 90 ah, ci ci gàddaay gi ci lañ fi jógee ñoom ñoom ñoo ci def lii muy ñaari marxala tomb tomb boo xam ne tomb maas la ak tomb boo xam ne tàmb la pour xàmmee baat yi la xam ne lii ndax yàlla li taala lii ndax faala wala taala wala baala loolu tam alxuraan karim kon jaar na ci marxala boobu ñu jógewaat ci itam ci jamonoy xalil nag alfarahid yi mi nga xam ne xam ngeen ko naxu moom ak arab lu nekk mën nga ne moom taxaw na ci jéeg yoo xamante ne bii ñëpp seere nañ ko lii ñuy waaye masque yi ngeen xam moom moo ko fi indi masque yi ngeen xam muy masque lonk masque ak yet masque suuf loolu moom ci moom la jóge ñun day mel ni kon marxala bi bi bi xalil ñëwee masque yi mu indi loolu ñun loolu mooy li ñuy jëfe ba tey jii kon bay li foofu am na lu ci yokkaat waaye la ci yokkaat loolu yu gaar la loolu nag ginnaaw bi la ko ci yokk lu mel ne lu mel ne alif laam ra lii imaana lañ koy wax ginnaaw bi la xalil def ko ci wala lu mel ne tilaas wa in du ni'matallahi dañ daan def fii benn tomb lii ixtilaaf lañ koy wooye dégg nga wala yaxasimoona ji ci yaasin parce que fii da doon amul tomb lu ko waral parce que ixtilaaf lañ koy wooye wala ishmaam lu mel ne sii at am na dangeen ngeen xam ngeen lii de xam ne ni ngeen ko def lii mooy ishmaam diggante siin siin maaska lonk ak ak suuf suy at suy at lii mooy ishmaam tomb yi ginnaaw bi lañ ko ci yokk kon ñu xam ne kon ñu xam ne euh, xalil bi mu ñëwee ñetti maaska yi moom la fi indi maaska yat maaska suuf ak maaska lonk lii nag ginnaaw bi bapt avancé na bañ yokk ci li ñuy woye maanaam maaska yi gaar mooy ishmaam ah, mooy ixtilaas kon ñu xam ne xam-xamu baptu foofu la tàmbule kon loolu bokk na ci li nga xamante ne bi moo ñu fi dajale ngir ñu xam nan la ñuy maase euh, xam-xam boobu muy xam-xam daf naka lañ koy maase xam ne xam-xam la boo xamante ne bii lan lay toppatoo yabxas an awaarid lil xuruuf muy lii gaar araf yi moom lay toppatoo lii gaar araf yi lan lay doon benn mu nekk xaraka mën na nekk xaraka muy maas baat bi mën na nekk sadda mën na nekk idgham mën na nekk sila mën na nekk ziyaada mën na nekk ilhaaq mën na nekk laam alif boo ko toppee maanaam bu bunti dabt da nga naan fukki bunt la yoo xamante ne bii xam-xam bi moom lay jàngale dégg ngeen loolu nag kon loolu lay toppatoo muy de euh, lii gaar araf min xarakaat benn day toppatoo lii masque lonk la masque suuf la masque kii la benn la bokk na ci li muy toppatoo du loolu dong de ginnaaw bi itam day toppatoo liy gaar araf yi ci lu mel nan lu mel ne sukkoon kañ lañ koy ma nekk bu ko nekkee ñu xam ne kon doonul leneen ak lan shidda kañ la ñuy sàdd baas bi nga xam ne kon bu ñu ko sàddaa ñu xam ne kon woyofaluñ ko idgham kañ lañ koy dugal dugal ko ak moroom ma ñu xam ne kon izhaaruñ ko sinaat yi boo boo naqaloo baat bi la topp nan lay mel daf koy toppatoo masalan li ñuy wax zeydu daara la la azbahannahu alif boobu ni ngeen koy def kon xeet yi moom la xam-xam bi di toppatoo boo ko xoolee fukki fukki fukki xaaj fukki xaaj li moom lay nekk xeet yi moom la xam-xam bi di toppatoo boo ko xoolee fukki xaaj maanaam moom lay moom lay nekk dégg ngeen na euh, benn kii bu ko bu ko woy mu toll ci maanaam euh, ñetti euh, ñetti bayit léegi nag mabaadi yi ma leen di wax kon dañuy jàngal lan mooy xam-xamu rasmu mooy lan ilmun yapaasu an awarid lil xarf aljihiya alfathu wa damm wal kasr wa sukun wa shidda wal maduma ila dalika dafa bari dégg kon ilmun yabxas an awaarid euh, lil xuruuf allati hiya alxarakaat assukun ashidda al idgham wa ma ila dalika yooyu yëpp moom lay topp mu toll ci fukki bunt benn bu ci nekk danañ ci jaar la nga xamante ne bi maanaam waxtu wi maanaam moom la ñu moom la ñu moom la ñu may ngir ñu war ko cee mën a jël aussi itam xam-xam la boo xamante ne bi lan ban wàccuwaay la am dañ naan xam-xam bi al wàccuwaay bi alxuraanul karim am xam-xamu maanaam bapt maanaam moom la ndax lan ci téereb suñu borom bi maanaam ci lay wax nga nil bu alxuraanul karim am na am rek fi ilmu rasm ilmu wa dabt boobu maanaam ñoom maanaam am nañ ko da ngeen lan lay jëriñ dalay may nga mën a jàng alxuraanul karim kama unzila bi tariqa saxiha moo lay may nga mën a jàng alxuraanul karim jàng bu wér parce que naka ngay xam ne fii da ngaa war a da war a continuer nu ñu koy nu koy nu koy jàngee moom boo xamul date mënul nekk parce que mënul nekk parce que loolu mooy kon féréw iji date ku ko xamul mooy firnde maanaam kooku féréw iji munu liir mënul liir mënul liir kon masaay lii muy toppatoo mooy loolu may waxoon fan la masque yi war a tege loolu danañ ci ñëw masque yi fan la war a tege muy bunt yu am solo masaay nii fan la masque yi war a tege loolu daf koy toppatoo bu baax masalan masailuhu imkaani an taktubu in shi'tum masailuhu eh, al mawaadi allati yudrasu fiihi mithl wad'u al harakaat wattul xarakaat muy benn ak almulhaqaat moo xam waaw wala yàlla walla kii la azawaid yi muy loolu ma doon wax léegi wala awdau xilaalakum te lu ci nekk nag dafa am dafa am lu tax defuñ ko rek ngir def ko euh, boo demee ca usulu dabt bu xaraz daf cay wax ne lépp lu ngeen gis ci alxuraan karim am na yilla lu ne dañ ko layal kon masaay li mu topp mooy al mawaadi allati yudrasu fii mooy la yañ fay jàng lay toppatoo loolu nag wadul xarakaat masque bii ngay masque fan la masque bi war a tege muy lu am solo masque bi fan la dëkk ci la ñuy njëkk tàmbalee te incha allah masque bi fan la dëkk ak mulaqaat yi yi nga xamante ne bii maanaam moom dañ koo war a jàng te amu ci zawaid yi yi yi nga xam ne dañ ko cee def te duñ ko jàng idgham baat yi ni ñuy duggante loolu moom xam ngeen ko bu baax li ñu koy def dafa bari izhar baat bi dafa war a feeñ kon masaayla bi maanaam yooyu yëpp maanaam maanaam moom lay euh, moom lay euh, moom lay moom lay toppatoo dabt nag moom li mu firi maanaam mooy téye dabt mooy at taqyid at taqyid loolu lay firi maanaam téye ko ba même sens sax soriwu ko ndax bu am maanaam même istilaahan tam day téye baat bi ba ba nga xamee ko jàng ko ni nga ko war a mën a jànge kon day mel ni kon maanaam kon euh, sorewuñ léegi nag buñ ñëwee ci li ñu doon wax ci ginnaaw ci wàllu tomb yi xam ngeen ne kon euh, ñetti xeeti tomb kon wala ñaari xeeti tomb am na muy bi ma njëkk ko wax abul aswad ad yi boobu mu defoon ak tomb tomb ñaar bi nga xamante ne bii mooy tomb yi ngeen gis waa bon ak xarakaat comme lii mu la xaat yi nga xamante ne bi yaxyaa moo ko ci def ak asib ak lan ak masque yi nga xamante ni moom la xalil def moom la xalil def léegi nag euh, bu ngeen seetloo ñun li ñuy jëfe fii dafa am boroom xam-xam yu bari yu bind ci ilmu rasm wa dabt waaye mën nañu ne ñi nga xam ne ñooy ñooy kàngam yi munoo wax kenn tudd Abu Amari Daani Abu Amari Daani mën nga ne moom mooy kàngam bi gën a mag ci ñii téere yi ñu xam fii ginnaaw an baari te boobu daanaka ay kii ak si wut fii téere la bindoon na ci benn téere yàgg na dégg ngeen daani ci xam ci kàngami rasmul dabt yi ci la bokk te mën nga ne daanaka sax mooy sëriñ bi mag bi ndax danga naan ñi ñi topp ci ginnaawam daanaka koo ci wax danga naan séq nañ lee Abou Amari Daani Abou Amari Daani Abu Omar ad-Daani dëkkoon Daaniya fii ci Afrique ci eh, jamono ji foofu xam naa ci Espagne lay bokk Abu Omar ad-Daani téere bi ngeen xam mooy al-Muqni moo ko bind da ngeen al téere la boo xamante ne bii maanaam wesar la daa topp maanaam ni mu ko taalifee day topp par par par par fu mu dugg dugg fu ba mu jeex mu door a jàll mu door a jàll feneen noonu maanaam noonu la ko bindee noonu la ko bindee bu ñëwee ci alif buy xonq da topp ba kaamil bi jeex mu jàll ci feneen tali téere bi moom noonu noonu noonu la ko noonu la ko bindee muy almuqni téere bu bu ñu xam la te téere yu bari la bind ci xam-xam bi mais bii moo ci gën a siiw ak kan ku mel ne Abu Daawud Suleymaan ibnu Najah lu mel ne Abu Daawud ab dongaam dongaam dongaam amru daani mi la Abu Daawud ibnu najah la gën a siiwe xëy na moom ngeen di gën a xam soleymaan ibnu najah da ngeen ibnu muhammadul xaasim najah la tudd mais nag daanaka naar yi boo xoolee seen maam rek leen di dàkkantale da ngeen ibnu najah moom téereem bi gën a siiw di bin tin bin téere yu bari mooy alxija bi ngeen xam hmm? atabiin da ngeen tabiin fii hijaay tanzil fii hijaay tanzil moo ko moo ko bind téere la bu réeréeree ñu xam ne abo da abo abo amari daani mii mën nga ne abo daawud moom moo ko yar moom moo ko jàngal parce que mu joon na sax yor yor waajuram bu jigéen abo sulaym ibnu najah mii taalibe abo amari daani la dégg Xortuba la nekkoon ñun ñëpp ay ay ay ay africain lañ da aussi itam ñoom mën nga cee wax euh, euh, ku mel ne Shaatibi mi ngeen xama ah? Shaatibi ci xiraat xëy na moom moom ngeen di gën siiw ci moom mais téere bi ñuy woowee al Al-Aqiila ci xam-xam bii li jëm da walla ku mel ne Muhammad Ibn Hasan al balan si téeréem bi ñuy wax almunsif al amawi al balansi al balansi téeréem bi ngi tudd almunsif léegi boo xoolee ñu itam danga naan génnuñ kii ndax balansi mi bi mu ñëwee xam ngeen ne Abu Omar Daani bi mu bindee al muqna da cay bari atte yoo xamante ne bii la maanaam waxu ca waxu lëngalu ca da ko wax rek bàyyi léegi nag bi loolu amee waa charq ñu ci bari jàpp ne araf yii ñoom maanaam dañuy ñuul mun si bi ko beneen si taalifee man nga ne yooyu la génne tarji ci ne lii dafa war a xonq loolu moo ko gën a poussé ci mu taalif téere bi ñuy wooye almunsif léegi nag kii nga xam ne maanaam mooy ki ñuy wooyee Muhammad ah, Ashurayzi gën a siiw ci imaamul Xaraz moom aussi itam nekk ku ñu xam ci waar wi topp ci ginnaaw ñi moom ci ñu mujj ñi la dégg nga Ashurayzi al Xaraz téere bi ñuy wooyee Mawridu Zamaan moom moo ko taalif téere boobu moom lañ bëgg a jàng incha allah la mu wax ci wàllu dabt moom la ñuy jàngale fi incha allah téere la boo xamante ne bi lan la ci def xam ngeen ne Abu Amr Daani téere bi mu taalifoon ci wàllu euh, ci wàllu dabt muy al boobu ak Abu téere bi mu taalifoon moom itam ci wàllu ci wàllu ci wàllu dabt ñaari téere yooyu moom la boole woy ko tudde ko maanaam mawridu zamaan amadu bayaan la la ko defoon folliwaat ko woye ko mawridu zamaan nga xam ne ñaari téere yi abo amari daani taalif ak abu euh, daawud moom la boole ci dapt moom la boole def ko benn téere muy mawridu zamaan bi bii ñuy jàng tey téere la boo xamante ne bii macha allahu taala xëy na nag euh, bu ñuy wax euh, ku mel ne Ahmad al Shunqiti mi taalib aljawhar al munazzam bi nga xamante ne bi maanaam fu nekk nag daa am ku am ku nekk daa am loo moom daa am loo xam jawhar bi nañ ko fonk bu baax sëñ Saaliw moom lay jàngale ndax lan téere la boo xamante ne bii xam ngeen ne ca tàmbali ma wax na ko ca ah, fay na fii tanzilina ah wal muqni wa munsifin la maqnaa lil munsifi kon lu maanaam jawhar munsif la jël ak Muqna ak Tanzil woy ko mu nekk def ko benn téere benn téere melu nii jaww mën a zambi ci leeraay ak ci maanaam maanaam féetal masala yi fenn ndax xam nga téere yi li ci am solo mooy buñ waxee pare ñu ñu lëng nga mën a jàpp li ngay jàpp mais sinon ci ay xilaafaat ngay ngay dox ci ay xilaafaat ngay dox téere jawhar nag moom ñetti téere yi moom la amal seen xiit yi boole waaye ko tudd ko al jawhar al munazzam boo xoolee ku mel ne euh, euh, Ahmadul Xaadi téere bi ñuy wooye euh, tashhir bi mu ñëwee moom léeg-léeg jawhar danaa wax loo xam ne moom moom maanaam dana lëngal indi àtte boppam kon ci tënk itam mën naa ne téere yi daal mooy yi nga xamante ne bi mën ngeen ne ku ku bëgg a delloo waaye ci xam-xam bi boo ca delloo lépp loo bëgg xam da nga ko ci xam kon tey ñu ngi fas yéene jàng nag Mawridu Zamaan ci ci bunt bi ñuy jàngalee dabt nga xam ne maanaam ci mujj gi la nekk dégg ngeen yaakaar naa ne euh, kii leen jox am joxuñ leen ko ah ah nusxa euh, kii nii am ngeen yi nañ leen ko wutal waay hmm? parce que bariwut lii xoola lii bariwut ñaata kayit la benn yow da ngeen ko kii ah ok ah, ok ban paas Euh, mu ngi ci passe 36 euh, 36 dégg ngeen passe 36 la page 36 la bu ngeen ubbee seen téere passe 36 foofu la kii bi commencé date bi foofu la tàmbalee passe 36 iftaal kutub aussi itam ñu xam le ne ñu xam le ne ilmu dabt dañ naan ilmu dabt mabniyun alal wasl loolu mooy lan page 36 la commencé woon xoola dañ naan min fadlikum الضبط مبني على الوصل dégg ngeen الضبط مبني على الوصل loolu mooy lan parce que li ko tax a jóg mooy aar làmmiñ ba muy jàng du juum loolu lay toppatoo masalan euh, xoola euh, إذ قال إبراهيم رب أرني كيف dañuy bind kii rek dégg ngeen kayfa tuxyil mawta yéen a ngi seen kayfa tuxyil mawta ñëwaat fii ne ana uxyi dégg xoola bu ngeen seetloo da naan fii am na yaa wala amut yaa ah nga day am yaa bu ngeen koy bind ah am du am yaa wuyu leen ma daa ko da koy am mais nu ngeen koy jànge looy wax kayfa ndax danga naan toxyil looy wax toxyil ngay wax loolu mooy mam ni alal was mais fii looy wax ana uhyi parce que xaraka moo ci euh, moo ci topp mais fii boo xoolee alif tuf yii masque ndiig la yaa buñ maasut masque ndiig la ñaari masque yi buñ daje dañuy bàyyi benn bi loolu loolu loolu mooy ilmu dabt man ni ñu alal wasl lu néew lu mel ne am na lu mel ne falama tara aljamaani lu ngeen di wax foofu eh eh da ngeen di musaaraka nag bu ñuy jàngale eh yéen da ngeen mokkal man mu yéen farban mokkalu ma da ngeen lu ma soxla na ngeen ma ko wax ay kaa nga nekk fii da ngeen lu ñuy wax falama taraal taraal wala taraal jamaani lu ñuy jàng taraal wala taraal ah dañ koy bind wala duñ ko bind loolu mooy voilà xool leen fii tara la ñuy wax gisoo ko nii taraal jamaani lii lii luñ settee la ci xaayda bi luñ settee la falama taraal jamaani dañ koy xëcc mais dañ koo settee ci régal bi dañ ko ci settee mais la la fa nga waxee yu fële kayfa tuhil mawta tara al nga waroon a wax mais felamaa tara al jamaane ngay wax da ngeen ko dañ koo settee ci règle kii bi danañ ci ñëw bu soobee suñu borom da kon ñu xam ne ilmu ras moom niyun alal wasl moom amul soxla ci xam lu ko toppatoo kii ci sama kanam lu ma koy jàngi amul soxla ci leneen loolu rek lay toppatoo dangeen bu baax léegi ki sama kanam nu ma ko jàngee loolu rek la yoonam nekk la jël ci yoonam nekku ci dégg ngeen ma axna anni maaliya ah maaliya da ngeen di maas xaag wala du ngeen ko maas du ngeen ko maas mais da ngeen di sàdd baat bi ci topp loolu mooy dabt loolu mooy mbiram da ngeen loolu mooy mbiram kon <coughs> euh, li njëkkoon a wax mooy njëkk ci bunt bi fas yéene jàng mooy euh, alxarakaat la njëkkoon a wax lan lay toppatoo lii gaar lii gaar euh, baat bi ci ay ci ay maska bokk na ci li nga xamante ne bi maanaam euh, kii da koy la koy lijjanti euh, rasma daf koy lijjanti ma mabaahisu dabti ladayhim xusira xarakatul xarfi sukunun yujra shaddun wa mutxamun wa hamsun kayfa jaa jaratu naqalin wasilaatin udrija wa mulhaqun wa zaidun laa mu alif fa tilka min fusulin ta'talif kon ilmu rasm fukk yooyu lay toppatoo xarakatul xarfi bunt bi foofu la tàmbalee xarakatul xarfi bunt bi foofu foofu la tàmbalee da ngeen moom lay jàngatee nak ba abiyaat yooyu ma waxaat ko wala ma bind ko ma wax ko ngeen bind ko wala ma mën bind ko ah ah non lool loolu amul ci téere bi loolu sama kii bopp la rek ah ah dégg ngeen aywa eh. aywa bind leen ay na imla mabaahisu dabti lii kay xanaa kawe na mabaahisu dabti dégg ngeen ko mabaahisu dabti ladayhim xusira مباحث الضبط لديهم حصر مباحث الضبط لديهم حصر بسم الله مبا مباحث مباحث الضبط لديهم حصر لديهم حصل حركة الحرف حركة الحرف سكون قد جرى مباحث الضبط لديهم حصر حركة الحرف sukuunun qad jara shaddun shaddun wa mudghamun tabsoro bi neexut de tabsoro bi neexut de wa hamsun bii di yoru ko moom cër boobu neexut wa hamzun kayfa jaa kayfa jar jaratu naqlin jaratu jaratu naqlin jaratu jara jaratu naqlin wasilaatun wasilaatun udrija udrija wa mulhaqun wa mulhaqun wa zaidun laamu alif fatilka fatilka ashrun min fusulin min fusulin min fusuulin ayna al-mimsaahu min fusuulin ta'talif tablu neex ne min fusuulin ta'talif ta'talif voilà amra mawjud waaw aar bi bu jeexee ngeen wax ma dama ah. xam naa tey ubbi bi la moom day xaw kii da ngeen ci tutoyé bi la hmm? ah man commencé gu ma jàngale de mabaahisu dabti la day fusira Mbacke. non mais iftaay bi la wax jeeg nangam tax di mbeek yaa ko wax jàngaguñ ah jàngaguñ da ngeen am déet day doog ñaari defi jàngaguñ tey moom taqdim lañ doon def mais jàngaguñ waaw da ngeen xarakatul arfi sukunun shaddun wa mudgamun wa hamzun kayfa jaa jaratu naqlin wasilaatun wasilaatun wasilaatun udrija saba wa mulhaqun wa zaidun laamu alif fa tilka ashrun min fusulin ta'talif dab yapasan ashrat ashyaa fukk yi ci lay wax fan lañuy ñuy baat bi maas ka néeg mooy lan fan lay nekk shadda fu koy am ku ko dul am idxaam kañ lañ koy def xam sa fu muy am fu mu dul am jaratu naqlin ah eh, masalan eh, allahu masalan adaabu nalimun wasilaatun boo paree kii ba fan lay nekk wa amul loo xamante ne bii maanaam dañ ko war a jàng ah mais mais binduñ ko wazaayitun loo xamante dañ koo bind te kenn du ko jàng laamu alif kon fukk yi moom la dopt di jàngale da ngeen kon ñu commencé incha allah taala ci xara xarakatul asli da ngeen xam naa nag moom ñu xool rek lu xaj ci kii bi wayu njëkk bi day wax ne alxawlu fi ahkaami wati xaraka fi larfi kayfa ma atal muharraka loolu la njëkk a wax alxawlu fi ahkaami wati lxaraka fi l arfi kayfa ma atat muharraka maanaam masque bi fan la war a tege nee na loolu ci lay njëkk a wax léeg-léeg bu ngeen lool danañ corriger point yu bari loo xam ne loolu masque bi fa muy tege du baax kon jaadu na ngeen xam masque bu nekk fan la war a tege bu ngeen dee bind nga xam ne lii danga ci am xam-xam dana la wóor ne masque bi fii la dëkk kenn duutu la ko wax aussi itam masque ba ngay maas tam dëkk fi nga xam ne kon yow nekk xamoon nga ne lii nii la war a mel donte xamoo ko mais xam ne carrément lii la da ngeen alxawlu mooy li ñuy wax li ñu tax a jóg mooy lan fi ahkaami watil xaraka ci wax àtte yi maanaam palaasu masque fil arfi muy ci baat bi da ngeen kayfa maatu mu xaraka saa yi ñu ko maasee dara fan la masque bi war a nekk nee na man loolu lay bëgg a wax loolu la ci teg man yàq nañ bayit aywa aywa bismillah كواصل واو كذا أمامه أو فوقا وتحته الكسرة ياء تلقى هذا يكفي شكرا لك loolu daf fi jàngale ñetti mbir ñetti mbir yoo xam ne benn bu ci nekk jàngale na ci ñetti mbir da dafa wax ne fa fathatun alaahu wa hiya alifu matuhatun suura muy benn dégg ngeen fa fathatun alaahu wa hiya alifu matuhatun suura loolu mooy ati bu njëkk bi day wax ne li muy nekk jàngal mooy li ñu wooyee fatxa jàngale na fi ñett fan lay nekk nan lay mel fan lay nekk moom mooy makaanul ma muy makaanul xaraka ak nan lay mel mu ne fa fatxa ñu ne ko ah mais yéen ñi ku la laaj masquette boo koy taarif looy wax te moo ne yéen ñëpp a mën a masquette mais jaadu na ngeen am xam-xam bi ku la laaj masquette mooy lan nga ne ko lii mooy masquette te kenn du ko dindi loolu rek mooy def dajale mais. la ma leen waxoon rek lii moom xam ngeen ko mais nag ngeen xam ne lii la ba ngeen mën koo layal ba léegi aussi mën koo jàngale da am xam-xam te mënu koo jàngale mënu koo jàngale dafa metti ah loolu moo ñu bari am xam-xam te mënuñ koo jàngale da nee na fafaraatul fatha alaahu ci kaw araf bi lay nekk fafatha maskayet ah alaahu nee na ci kaw araf bi lay nekk waxiya maska bi nag fatha boo ko bëggee xam mu ne mooy lan taarif bi alifu alif say nekk maqtuuxatun maanaam gu tàllelu gu tëdd ndax day rek mu ne na ku léegi ku la xa ku la mën nga koo xam le ah alif lay nekk gu tëdd gu tuuti lu waral mu tëdd parce que dañ ne bu taxawee dañ koy jaawale ak alif gi dëkk ci baat bi loolu moo tax mais bu rëyee itam dañ koy jaa day ñaaw ñu ne suxura alif bu ndaw lay nekk ndax day taxaw mu ne déedéet maftuha day tëdd day tàllal lu commencé nday jooru jëm càmmooñ pare na xoola gis ngeen ko nii si pap suura xoola anamta alayhim xool leen fafat hatun alaahu ñu naa ah nee na fii lay nekk de dégg ngeen nu muy mu ne waaye alifu alif la boo ne alif bu ne woon cell mën nga koo def nii boobaa problème lay doon ak xëcc ga lay daal di nekk seetlu leen ko mu ne ah maqtuhatun day tëdd kat taxaw parce que bu taxawee day jàpp ne ak la mu ne nag ah na yam tam waaw parce que boo xëccee ba ñii day ñaaw mu ne sughra alif bu ndaw lay nekk bu tëdd ci kaw baat bi ci kaw araf bi ci kaw araf bi da ngeen kon pare na ci taarif fatha waadi hada ah voilà kon fafathatun euh, alaahu waaye alifu maftuhatun sughra mu pare ci jàll ci maskalon ko mu ne lii nii lii nii waaye lii mooy maskale ah déedéet loolu sa gisin la rek waaw waaye booy booy boo ñëwee yow léegi voilà xam-xam la lay jëriñ yow boo ñëwee la nga wooyee ayin ci kaw maanaam bu ñu leen ne xam nga su ñu alaahu mooy du ne ci suuf du ne ci kanam parce que xam nga alaahu parce que daa am yoo xamante dañ naan ndax ci kanam lay nekk wala ci digg bi lay nekk mu ne moom anyway ci kaw lay féete araf bi loolu moo ko yitteel masque araf bi nga bind lu mën na na ko ne ci kaw dégg ngeen ko bu baax loolu su boobaa kenn mënul ku corriger ne ko eh foo ko teg ma ne ko ah, man jazari man xaraas daf ma jàngaloon de nee na fafatatun alaahu la ma waxoon tamit ci kaw araf bi dégg ngeen ko parce bu mu ne ci digg bi bu mu ne ci suufam da ngeen la ca des nag day euh, euh, ku rafet mbind nag dana ca feeñ ñu continuer bu ñu jàngalee léegi bañ pare ngeen door laaj da ngeen wa dammun yoorafu waawan kada wa dammun yoorafu waawan kada fan lay nekk amaamahu aw fawqa xilaaf mu ne nag maaskalonk Euh, comment dire baal ba maskolong tam gaaw dégg ngeen xool leen lahu fabat hatun alaahu ah loolu lañ ma jàngal lahu léegi maskolong mu ne wa damun yoorafu wa damun yu'rafu waawan waawan la wax mais fu muy nekk kada amaamahu aw fawqo foofu ñett moo ci nekk nee na maskaloon ko waawan lay nekk ak waaw lay nekk ak waaw kada kasaa xam nga mu ci jublu mu ne day tuuti loolu ci jublu kada na ma la ko waxee woon fee waaw gu tuuti lay doon waaw gu tuuti moom lay doon fan lay nekk ah أمامه أمامه أو فوقه wala ci kanam xilaaf la almurajjah nga xamante ne bii moom moom la boo xoolee imaamu daani daa indi ñaar yëpp lëngalu ci mais abu daawud taalib ibnu najaa moom li mu lëngal maanaam mooy mooy mooy mooy mooy ci kaw te loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp moom lay jëfandikoo dangeen kon ngeen xam ne bu ngeen demoon ba gis maanaam commence ak lahu def ko fii def ko fii ah def ko fii yàq ko xam-xam la waaye nag li ñuy jëfe maanaam mooy lii imaamu daani andi na ñaar yépp yépp la andi comme nii ci kaw la wax wala ci suuf ci kaw baat bi wala ci kanamam bu dee maskalon waaye nag taalibi bii bu Abu Daawud moom lan la lëngal nee na ca kaw loolu nag mooy li ñuy jëfi actuellement nii ci foo dem léegi nag waaw waaw gi ñu waxoon ba léegi am na ñaari yu ci nekk bu ngeen seetloo choc ba léegi waaw lañuy def seetlu leen ko machine bi même moo ci nekk waaw bu ndaw lay nekk mais nag dañ ne bu dee fii ci maanaam garb maghrib bii waaw bi xool leen fii waaw bu ndaw kii laa waroon am sax nagal ma jël couleur xoola waaw day am ñetti forme yéen a ngi lu bu baax xoola lii lañuy dagg ñun bopp bi gisoo bopp bi nii bopp bi yéen a ngi seet ñun bopp bi la ñuy dagg bopp bi moom la ñuy dagg lii da koy fekk ci téere yi dañ ne waaw guñ dagg bopp bi bu dee bu dee bu dee maghrib arabi noonu la ñuy maase bu dee ci charxu rek ñoom waaw ba ñu waxoon ba léegi ca lañ nekk bu ngeen seetloo ñu xool leen maskaloon ko ah nii lañ koy maase am ah effectivement fim ne xoola yaay mi ngi seetlu gis ngeen ko nii gisoo ko nii yéen a ngi koy seet nii yéen a koy ñun biñ ñëwee lii lañ dagg lii lañ dagg gis ngeen ko loolu la loolu nag ba léegi loolu moom daggan na te itam wax nañ ci moom dañ ne moom waaw suxuraa maanaam moom loolu ci charx moom maghrib gépp moom lañ jël euh, mashriq arab bi bépp moom lañ jël waaye ci xar bu ñu nee nañ waaw goo xam dañu dañ dagg bopp bi moom lañuy jëfandikoo te te itam loolu teer yëpp boo demee moom nga fekk téere yi moole miñ moole arab bi boo demee Mauritanie moom ngay fekk boo demee Maroc moom ngay fekk boo demee Algérie moom ngay waaye ba léegi bu ngeen téere yi moole yi ñu moole Arabie Saoudite waaw yi tuuti ngeen cee gis masque lonk waaw bu tuuti lay nekk loolu ko sensé wut kon fan lay nekk ci kaw baat bi lay nekk nu muy mel waaw lay doon fu muy nu muy toll day tuuti kon ñett sart la na ne ci kanam na nekk waaw te na nekk waaw bu tuuti ñu ne bu dee ci al maghrib al arabi waaw gi nañ dagg bopp bi nga ne boo ko boo ko dajati ak daal ak daal lay xaw a niru voilà kon wa dammun yorafu waawan amaamahu aw fawqa wax naa leen ne al murajjah maanaam mooy na nekk ci na nekk ci ci kawam lu ci topp Ah, wataa taxoo voilà mu ne nag yaa nu muy mel non dama juum ma masque suuf mu ne nag wataa taxul kasratu yaa an nee na kasra moom aussi la ma xool da ciy waxaat nee na ak yaa lay nekk fan lay nekk ci roon baat bi lay nekk nu muy mel oh xool leen la ñu waxoon moom la ñuy waxaat bu ngeen seetloo boo bindee alladi alladi yéen a ngi seen mais boo demee ci charq yi doo ko nii ba léegi nii lañ koy xëcce ba léegi si nii lañ koy xëcce ah nii lañ koy xëcce waaye nag ñun dañ naan yaag yi dañuy dagg bopp bi te day dëpp loolu ci sarf bi ci lay nekk xoola yéen a ngi seen xool leen yéen a ngi seen yaagi lii ngeen seen nii yéen a ngi seen ah yéen a ngi seen lii ay na mën sax xamoo yaa ngi nii dañoo dagg bopp bi nii gisoo lim des gis ngeen ko ni ñu teg ko fii ci suuf gisoo nii daan nekk la si gënal bu dee charx nag ñoom yaa gi lépp moom la ñuy indi yéen koy seen voilà mu ne euh, waataatal kasratu yaa antul xaw kon day mel ne kon ñaari way jàngale na ci xeeti masque yi masque lonk masque ju masque yat masque lonk masque suuf masque xamal nañu fan lay nekk ci kaw baat bi lay nekk nan lay mel alif lay doon day tëdd te day tuuti masque lonk xamal nañu fan lay nekk ak nan lay mel maas maas kalon ko xamal nañu ne waaw lay doon gu tuuti fan lay nekk ci kaw lay nekk wala mu nekk ci kanamam mais ñu lañ lëngal mooy ci imaam eh, Abu Daawud mooy mooy ci kaw mu ne nag ni ñuy bindee waaw gu ndaw lañ wax boo demee ci charx ba léegi waaw gu ndaw gañ waxoon moom lañ jël waaye boo ñëwee fii ci xarb li ñuy jëfandikoo maanaam mooy waaw guñ dagg bopp moom la ñuy jël da ngeen na ci kaw lay nekk ñetteel bi bu ñëwee ci yaa bu ñëwee ci kasra maska suuf fan lay nekk nee na ci ron baat bi lay nekk taxtaxu lay nekk nu muy mel yaa lay doon déere mu ne déer yaagu ndaw lay doon parce que kasaa jëma xol ba rek dell la delluwaat yaagu ndaw lay nekk nu muy mel mun ñu ne dañuy dagg bopp bi bu dee ci soow bi bu dee ci penku nag moom dañ koy bàyyi noonu waadi hada waadi hada nuwaasil iqra آه بلى mat هذا يكفي ثم إن أتبعتها تدوينا fas ilaaha mislaha mu ne nag la ma la waxoon du ma ci ñëwaat bu dee ñaari maska na nga ko defe woon rek noonu nga koy defe waat bu dee bu dee ñaari maska yat defaatal noonu defal ñaari alif yu ndaw yu tëdd yu ne yu ne ca kaw da ngeen bu dee ñaari maska lonk defal ñaari maska ñaari waaw yu ndaw da ngeen wala bu dee fii defal ñaari lu mel ni xaw a daal dégg ngeen bu dee mask suuf ma la waxoon defal yaaguñ dëpp euh, boofu moom maanaam euh, kii lay nekk euh, ñaar lay nekk voilà alladi kon day mel ni bu ngeen seetloo la ngeen xamoon dara changé wu ci lu xam nga lu fi yokk ngeen xam fan la tege mais lii rek mooy li ngeen xamoon kon xam-xam lii doo la leen di jàngal ëllëg ngeen mën koo jàngale aussi itam lu ne ngeen man koo layal du leneen mais lii moom mooy la ngeen xam fu ma da in arbataha soo ko tofalee tanwinan muy tanwin muy muy tanwin nag danañ ci ñëw tanwin mooy lan ku xam tanwin ci yéen ñaari maska ay eh, ñaari maska daa gàtt nag de ñaari maska ay jayit ñaari maska jamil loolu baax na ak kan waayit waayit waayit bu ñu waxee ku xam ku bëgg da na naan nii tanwin anta noonu zaayida saakin nun goo xam ne zaayid la te dañ ma dañ ma maas keneen jahid ak kan ah sukunul sukunul idhaar laa baasa bi hada anta nun goo xamante ni dafay dolli koy tudd te goo xamante ne bii daal day dolli ko ci baat bi te duñ ko bind voilà voilà léegi nag loolu dafa am solo tanwin tanwin xamoon nuun daa am ci baat nun da ngeen xam ngeen ne araf bu ñu xam la di mel nii ah nun xamu nuun a ngi nii mais boo xoolee euh, euh, aliman xakiman xoola euh, min saa soo xoolee tanwin mooy li ngeen wax mooy nuun gu ñuy jàng te kenn di ko bind loolu la ñuy woowee tanwin alimun mais déggul ak nuun déggul ak nuun alimu ànn soo ko doon bind ci bindu maanaam li ñuy woowee arub alimun boo bu ñu la doon jox woy arub di la ko bindloo yi ñu jàng arub alimun boo koy tafkik ni ñu koy binde alimun nuun gii lañuy ñuy woowee tanwin danañ ci taxaw mu ne nag bu fekkee ni bi maanaam da nga koo da nga koo tanwin muy da nga koo maas ñaari maska hmm? suma in adbata tanwina fasit ilayha mislaha defal bu mel noonee bu dee maskeet defal ñaari alif bu dee maska long defal ñaari waaw bu dee maska suuf defal ñaari eh, eh, yaay yu ndaw ci suuf da yoo xamante ni du am bopp hmm. danañ ci ñëw tanwin moom daanaka mooy li ëpp solo aywa man yaqra waasil waaye yaqra aywa waaye yaqra waasil naam ah jamil hada yakfi léegi nag tanwin fan lay nekk ñaari masque yi xam nga léegi moom lañ njëkkoon wax du changé waxoon na ne la fafathatun alaahu ah wa damun yu'rafu amaamu aw waxoon na le waatatul kasratu yooyu du sensé kon ci araf bu mu mën a nekk noonu lay mel mu ne nag ah waayun taxif aywa jàngaatal waay ma dégg bi alif fi nas bi xuma alayhi ko bu baax voilà waayun taxif bi alif fi su fekkente ne bii nag dangaa taxaw ci alif alif boo xamante ne bi masquer lañ ko maas xuma ñaari masque xanaa lay ci kaw alif gi lay nekk mais gis gisoo lim ci teg fi a saxi fi a saxil bi kutub bi la wayu moo tax fi a saxil kutub bi ça veut dire ci dégg am na xilaaf kon te la gën a wér ci téere yi voilà dana ci ñëw ca kanam a kanam xool leen euh, fii ali man xoola nee na soo baat bi suñ commencé ñaari masque mu am alif xam ngeen ne euh, alif tanwin bi alif bi la ñuy wooye alifu tanwin alif bii alif tanwin lañ koy wooyee mu ne mu ne fan la ñaari masque yi nekk mu ne xuma alay ca kaw alif ga la ñuy nekk ali man nii nga koy maase mais nag duñ laal fii da ko bu baax duñ laal foofu de dana am wax juñ wax da ngeen xam naa am na waaw kii man ni maase lii mooy lan fiaasay fiaasal kut bi mooy xëy na am na ñu wax jeneen wax danañ ci ñëw parce que ali man nee na du foo fekk tanwiin bu fekkee benn bi alif la comme nii ñaari masque alayhi ci kaw alif ga lay nekk mais nag du ko laal nii lañuy ñuy masque masque ñaari masque tanwiin saa yu saa yu saa yu koy defati ndax nag xilaaf bi mooy ndax am na ñu ne aliman ndax dalay maas baat bi tanwin gi nga indi ko fii aliman da ngeen ko bu baax xarit yéen a ngi gis ni aliman raaytum aliman walla aliman ali aliman da ngeen lii tax ma fiyaa saahil bi ca la gën a wér ca la gën a wér ci téere yi boo xoolee xaraas dana ci ñëw waaye lam ñëw loolu mooy mooy lii mais yéen lan ngeen jëfe fii ah al awal awi saani awi saalis al awal effectivement ah voilà ngeen xam ne voilà xam-xam yi noonu su boobaa ku leen di toppal ku leen di toppal soo def soo maasee fi baat bi sañu laa wax dara da ngeen xuloo nag seen seen seen i collège da ngeen xam-xam ngeen am xam li ngeen fu ngeen ko teg bu ngeen ko maasee fii sañu laa wax dara parce que xilaaf la moo dana ko wax ci kanam moo li bi muy taalif ay jamonoom booba nee na lii moo xew dana ko wax ci kanam. am xataan tey. ci mel ni la muy wax ci kanam lii dana ko wax ci kanam ndax tanwin bi alif bi lay tege loolu mooy xaayda bi nga xamante ne bi maanaam loolu mooy àtte bu njëkk bi wala ci araf wi njëkk alif tanwin lay tege. loolu mooy xilaaf bi waaye nag almaamoolu bi li nga xamante ne bi maanaam moo jaadu fi ñu toll nii mooy lii da mooy lii jamono yi muy nag nee na lii lii moo amoon dana ko wax ci kanam insha waa bi haada waru ko waru cee àgg sax waxuma di ko romb. Ah, waru cee àgg. alif gi lay mais du ko laal na am espace seen diggante. waaye dama ne la xam-xam bi laa wax yow koy jeex na. Ah. foo ko fekk di xam ne loolu du xam-xam. xam-xam bi mooy ma ñaari masque yi na jege alif gi te bu mu ko laal loolu kay leer na naññ. bu ko dépassé kay loolu yàq la loolu leer na naññ. ñaari masque nii lay mel mais du laal lii ah. du ko laal. ah. daa am lu leen jàngale muy benn maskayet lañ leen njëkk a jàngal benn maskayet lañ leen njëkk a jàngal pare ci su yi mu alaalimu biñ ci wax fii lay nekk kenn du ci wax mais tanwin lañ leen jàngal nan lay mel dégg na muy mel bu dee bu dul alif tanwin mansuub amul xilaaf lañ leen jàngoon dara du changé mais dañ ne la bu fekkee bi alif la règle bi lii la ok leer na su dee alif fan lay nekk ñu ne ne ci kaw alif gi lay nekk huma alayhi waaye nag bu ko laal xanaa leer na am ñu ne déedéet tanwin bi na na na na na na ci alif ga masque bi nekk fi mu war a nekk am ñu ne déedéet parce tanwin day topp maska comme maska bi maanaam caali man mim gi moo ko moom kon ñu ne na fi maska ba nekk loolu mooy xilaaf bi mais wax ji moom dara mënul dépassé alif mënul nekk moom loolu du xam-xam da xam-xam loolu lay jariñ da ngeen bu baax xam loolu lay jëriñ fu ngeen ko di fekk ngeen xam ne kooku nag daa maas lu ko neex benn masque moom ñaari masque yoo xam ne du alif amuñu ci problème ñaari masque yu alif jàngal nañ leen ko huma ci kaw alif lay nekk te bu mu ko laal day am espace seen diggante xoola yéen daa am lu ngeen bàyyi xel ñaari masque lonk amul xilaaf dangay ngay déglu ba mu pare bu leen bu leen bu leen tànqiidal lu tànqiidut mooy bu jafee jafeel lu jafewul kii li mu wax daa leer naññ ñaari masquette amul problème bu dul alif ci kaw kii bi lay tiim ci kaw ci ci kaw araf bi lay ñaari ñaari masque lonk ñaari masquette lañ ne la bu fekkee ne du alif ci kaw ci kaw araf lay nekk muy lan la jàng foofa tas alaahu du soppeeku mais bu dee alif lañ ne la ci kaw alif gi lay nekk mais nag du ci agsi tant du ko laal ñu ne la am nañu naa ah, déedéet tët min fadlikum min fadlikum du ko laal am ñu naa ah, noonu parce que masque daal lañ jàngoon fafathatun alaahu masque ci kaw araf lay nekk ku ne xam ne ne ali man moom mim gi moom euh, magi moom mim gi moo ko moom ñu ne kon na ko tanwin fekk si parce que tanwin day topp masque looloo tax ñu aliman nañ ko mas ci mim gi ñuy wax ko teg li ñu ji mooy lii foo ko teg ñoom foofu lañ ko teg mais lii bu lañ ci taxaw wu du dara lu ngeen gis lu loolu man dama ko mas may xam-xam mais xam-xam leer na naññ bu leen jafee lu jafewut bu leen rëyal lu rëyut dégg nga kii foo ko mën ak ku ko mën bind xam bi xam jàngal nga ko lii la dégg nga voilà masalan su ma ko maasoon nii voilà su ma ko maa sonni léegi boo ñëwee da nga ko da nga koy ko da nga koy corriger da nga koy ko da nga koy corriger da nga koy corriger boo ñëwee da nga koy corriger voilà man yaqra min fa alkalaam alkalaam voilà hada yakfi li ñu la wax nag alkalaam aljanibi fi lxalf conférence bi ci ginnaaw bu ngeen paree ngeen wax ma ko dégg ngeen bu conférence bi rek ngeen wax ma intahaytum conférence pare na voilà ah ak ah, soal du ko jiitoo dara waaw xam nga jàngal nañ le masque ci kar ci ndaw di dajale commencé jëm jëm càmmooñ mais mënul mënul romb araf bi du ko romb ale bi moom fexeel ba li espace bi ngay indi moom moom bu ko dépassé fenn te te itam ah, bu mu ko laal tam bu mu ko laal da ngeen yéen da koy maase nii yéen ni ngi fii fii ma yaakaar ne ndax lii gënu fee bari Ah, bii moo fi gën a bari bii nii bii bii nii ah bii moo fi gën a bari bii moom laa yaakaar ne effectivement xoola wuy ma léegi daal wuy ma xam-xam bi léegi pare nañ dégg ngeen wax nañ leen ne xilaaf bi am na ci imaamu Daani lim jàngale leer na li njëkk a wax mooy maaska yi ci kaw araf bi lay tege dégg ngeen bu dee bu bu dul maaska yi amul amul problème maaska yi boo am alif loolu moo am wax ji alif bi xoolal alif bi wiin la alif bi ngeen gis tanwiin la alif tanwiin la loolu tax mu am problème alif bi wiin la mais dëkkul ci baat bi. ok xam nga yee dafa alif kanam tuuti. dañuy laaj ba xam ci kaw ëllëg ñu lay tege. ok. ay na ant naam alal alif xoola régal bi ñu leen jàngaloon huma voilà mhm. voilà léegi lool leer ci yéen na ngeen ko def dégg ngeen leer na ci yéen ñu jàng dégg ngeen voilà lan moo ci topp sawa nul si man karril bayt sawa damay àggal après ñëw ñëw jaarati da ngeen sawa nul rusima aha aw in jaa aha mu ne la lii ma lay wax mooy su dee lu ñu bind nga xamante ne bii ba ñu bind kaa bi dañ ko bindaale nii lay mel sabaay nun rusima aw in jaa waaw mu laqun wala sax dafa ñëw mu nekk maa mu laq amutoon ci baat bi lu mel ni maa dangeen ngeen règle bii du changé da ñaari mask ci kaw araf bi lay nekk waa bi hada waaye su dee alif ñu ne na ñu tiim alif gi te bu mu ko laal huma alayhi alal alif waaye bu mu ko laal ñu ne nag bu fekkee ne bii nag tanwin la am nañ ci xilaaf ndax ci kaw alif gi lay nekk walla ci araf yi ku njëkk lay nekk wala ci araf yi day jël masque bi tanwin bi dem ci alif ga loolu xilaaf na almurajjah mooy lan mooy nañ tiim alif bi waaye nag muallif bi Gharras nee ne ba muy taalif lii moom seen jamono la fa xewoon mooy araf wi njëkk ma alif tanwin bi ci la masque yi doon nekk loolu dana ko wax ci kanam tuuti incha allah mais ñu li kon ne ngeen li almaamool bii man dama jàpp ne sax lii moo gën a siiw ali man buñ maas miim gi ci Sénégal gi xanaa yaakaar naa eh bu buñ ñëwaat jéggal li mi baax na bu ci kenn taxawaat dégg bu ci kenn taxawaat ada yegg fi ma ne nag sawaay na rusima sawaay na rusima muy luñ bind nga xam ne daa ñëw ci kaamil bi comme li ngeen gis nii awin jaa waaw mu làqun wala bu ñëw sax nekk luñ luñ yéegal nga xam ne amutoon comme lu mel nan bari nay baat ka wi maa hamza boobu amutoon bokk na ci li ñu dolli amutoon aslan ci mbind mi moom hamza bokk na ci li ñu dolli ci ay maanaam ci ci ci ginnaaw bi hamza dafa amutoon léegi nag xoola antara mine samaa i anzala min as-samaa'i maa'an lañ waxoon fee moom lañ moom lañ waxaat su boobaa xoola fii am na ñetti wax mi ngi nii wa maa alayhi maa'an bunt bu yaatu la da ngeen maa an da ngeen lii moo ci am al maamul bii mooy al awal huma alay jëm la waxoon maan ñetti xeeti masque yi la am ndax ci bi lay nekk loolu mooy régal bi fafatun alaahu da ngeen ci delluwaat ah alaahu wala bokk ci bi lay nekk huma alayhi seetluwal nii alizab bi wala masque bi day jël day jël masque am tanwin bi dem ci alif ga mbaaxoo nekk jax mooy al awal bii loolu Abu Daawud wax da ngeen bu baax loolu Abu Daawud wax yaakaar naa ne fii nii lañuy ñuy maase ah forme yi moom ragal naa ne léeg-léeg nag a gis comme nii bu ngeen ko gisoon tam bu mu leen jaaxal du yàq anzala mina samaa'i maa'an comme nii da ngeen day bu baax mais alxuraan moo moo amu ci mais arab léeg-léeg nga gis maanaam ñaari maas yu am am suñu ñu teg ci alif dangeen bu baax su boobaa loolu dabtu nangu na ko waaye almaamool bii maanaam mooy mooy mooy kii bu njëkk bi huma alayhi waa de hada léegi bu ngeen demee ci charxu bi zarxu uh, kii dalilul xayraan charxu bi noonu la tudd da ngeen dalilul xayraan am na ca da ngeen waaw dalilul xayraan da yi am na ci su ngeen demee da ngeen dalilul xayraan voilà aywa man yaqra euh, après ma taxaw fii da ngeen voilà ñaar ñaari way rek ñaari te aywa mhm. mhm. waasil waasili mhm. alayhi shaklu effectivement loolu la ñu wax mooy nag su fekkente ne bii ba léegi xam nga waxoon na ñaari ñaari ma kii bi tanwin bi bu dee bu dee alif fii nag mu ne nag dafa nekk yaa bari nay baat ay fatan ay bari nay baat man da fukk ak ñaar groupe bi da ngeen yi nga xam ne maanaam yaa lañ koy muftaran ah fatan xeet yooyu man da fukk ñaar ci alxuraan karim régal bépp bem bem régal bi la mooy nag wayn yakun yaa an ka nahi muftara su fekkente ne bii xool leen وإن يكن يا كنحو مفترى كنحو مفترى dégg ngeen lu ci topp way ni ku njaaka nabi muftara ah xuma alal yaay wada nas solo ah nee na nag su fekkente ni bi ñaari masque yi xam nga alif waxoon nañu alif pare mu ne bu dee yaa ah? wa in yakun yaa nga ne muftara huma leen muftaran da ngeen ko wax nee koy maase huma alal huma ngeen ci kaw yaa la ñaari masque yi di tege waaye nag am na leen lu wax de mooy nag euh, kada nafu sara mu ne euh, texte bi yax bi siiw na muy euh, roy na daal siiw na trop waaye nag am na ñu ne waxiila tiraar fi léegi ñun xablu du ca nekk de am nañu ne déedéet du tege ci kaw yaa gi fan lay tegee filaar fi léegi min xablu muftara ku may indil beneen baat comme comme ah hudan voilà bari na fadan yadkuruhum voilà voilà am nañu ne déedéet hudan fii lay tegee wala bu dee muftaran ji nga jëloon muftaran muftaran da ngeen huma alal yaay waaye nag am na ñu ne waxiila fil arfi alladi min qablu araf ba ko jiitu ca la maas ka ya war a tege yaa ngi waroo koo laal su boobaa da ngay maas muftaran da ngeen ndax day tegaloo day rawante loolu moom atte ba muy baat ba muy topp moom moo koy définir da ngeen da ci ñëw da ngeen voilà kon waxii la fil arfi alladi min xablu bu fekkente ne bi baat bi ñaari maska la te yaa mujj ci ñaari wax moo ci am bu njëkk bi huma alal yaay ci yaagi la ci yaagi la ñaari maska yi war a nekk waaye nag waxii la fil arfi alladi am na ñu ne yaaga araf ba ko féete ginnaaw ca la maska ñaari maska war a nekk moo ne nag xasabama al yawma alayhi shaklu loolu mooy fii ñu toll nii noonu lañuy ñuy jamonoy xaraas di bind lii nee na boobu loolu moo xewoon yéen lan moo xew fi mu toll ah? alal yaa loolu day day delluwaat même règle bi ñu waxoon ci ginnaaw da ngeen euh, naktif bi hadal xadr insha allahu taala gadan nuwaasil da insha allah asalaamaaleykum wa barakaatu waadi ah shukran lakum ok ok voilà جيد واحد يقرأ واحد يقرأ نواصل حتى après bu arbitre bi ngeen wax أيوة léegi nag ñi ngi doon wax ci nuunu tanwin da ngeen ñi ngi doon wax ci nuunu tanwin léeg-léeg nag da gis nuun goo xamante ne bii du tan tanwin moo tax mu ne wa fii idan sumata nuunin in taxif lanasfaan wala yakoonan su boobaa fil alif su fekkente ne bii nag nuun nuun xam nga nuun tanwin la parce que dañ ko bind léegi ñu parce que lu tax lépp lu ñuy woy nuun tanwin booy booy taxaw da nga koy soppi alif noonu ngeen koy xàmme aliman alim aliman xakiman xakima ida idan la ataynaahum mais loolu jawaab la ah idan laa idan kon la ataynaahum min ladunnaa lu ci topp ajran ah ayna antum asiman voilà ci nisaa yi idan laa atay parce que loolu jawaab la idan boobu du noonu talwin idan noonu bi ngay dégg ah noonu ja noonu noonu noonu noonu jawaab la kon léegi nag lu tax ñu di ko bind alif ñu ne dañ koo jàppe comme noonu sëñ parce que bu ñu doon taxaw dañ koy soppi alif ñu ne nag bu fekkente ne lu mel noonu la wala sax xëy na sax du noonu du noonu idan lu mel ne nuunin intaxif nuun soo ko woye falee loolu mi ngi am fan ci nuunu tawkiit bu ñu woye fal lanas faan na nga ne lanas faan layes janan nga ne layes janan loolu lay wax doo damay misaal laye koo nan na nga ne laye koo nan mu ne su boobaa fil alif da ngeen ñaari maas ci alif gi lay nekk da ngeen ba njàngoon ci la ñuy delluwaat da ngeen voilà ñu ne nag kon su fekkee fekkente ne bii ñaari maske yi du ñaari maske yi tanwin waaye nag danga nga ci dégg nuun gi lu mel ne idan nga xam ne jawaab la wala lanas faan nga xam ne nu tawkiit guddi law ñu oy fal ko lanas fa an na la doonoon wala yekoon nan na la doonoon ba doon arab dagan na nga wax ñoo yem loolu la yekoon nan nag la yekoon na ñoo bokk même lu ñuy firi noonu tawkiit xafif rek la soo boobaa ñëwee nuun googu lanas fa am bin nasiya fan la masque bi nekk mu ne fil alif da ngeen voilà kon boo ñu xoolee euh, régal ba léegi ñoo bokkule bu dee yaa bu dee bu fekkee ne bii ñaari masque yi yàlla mu alal yaa changé wut ñaari masque yi su fekkee ni bi maanaam nekkul maanaam maanaam euh, nuunu nuunu tawkiid mais nuun la boo xamante ne bi cosaanam cosaan la ci baat bi lu mel ne idan wala nuunu tawkiid maanaam euh, euh, bi nekk a ñu ay fal ko su boobaa soo ko maasee ñaari masque ñaari masque fu muy nekk mu ne alif dégg ngeen ci alif gi lay nekk ñaari maske ci alif gi lay nekk euh, ma xool da ngeen wa fii bu dee lu mel ni idan nga xamante ne bii maanaam ñaari maske yi tanwin bi ngay dégg du tanwin mais dafa dëkk ci baat bi jawaab la su ma tanwin lu mel ni nuun inta xif fa soo ko woyofalee lu mel ni lanas faan na nga ne lanas faan wala wala yekkoo nan na nga ne la yekkoo nan xam nga nan seen yéen a ngi dégg nun bi boo taxaw la yekkoo naa ngay wax la yekkoo nan mu ne fan la ñaari masque yi nekk mu ne fii alif ci alif ga lay nekk da ngeen ada waadi balay xilaaf bañ waxoon ta moom ngay ñëwaat moom nga ñëwaat waxee léegi fil harfi léegi min xablu même même règle la da ngeen la nasfaan nga maas ñaari masque ci ayin gi soo ko defoon xilaaf lay nekk mais kenn du leen da nga ko yàq waaye nag mura maanaam li ñu lëngal mooy fil alif loolu mooy loolu mooy loolu mooy li ñu lëngal ci xilaaf bi hada waade aywa man yaqra aha aha hada yakfi ah mi ngi wax leneen nag ñaari masque yi nan lay tegaloo ñaari masque yi nan lay mel waaw maa ngi ko doon waxee léegi naan la de loolu loolu la muy topp ci kanam moom moo koy leeral moom la wax fii mu ne waxab la harfil xalqi rakkabtahuma waxab la maa siwaahu addaatahuma su fekkente ni bi ñaari maske li ci topp dafa nekk lenn ci xuruful xalqi yi neen ñaari masque yi nu ñuy mel rakkabtahuma dañuy tegalaw kenn du raw sa morom maa ngi xuruful xalq ban ak ban la waaye waaye waaye ijaaba jamaa dañ koy aaye واحد أنت همزة همزة همزة كم عند البين بعض مثال في هذا لا مثال همزة نعم حركتين بعضه يعني همزة نعم عذابا جيد عذابا عذابا gisoo ko nii lii la lii la bàyyi kii di wax bàyyi nan bàyyi kii sëñ daara <laughs> adaban sëñ daara lii parce que ali man moo ci topp dégg ngeen hamza dégg aywa hamza baadahu ah ha ha xabdun fahaun summa aynun haun summa lataani summa jayit aywa ha misaal fi hada e ah aliman لا ها لكل قوم هاد جيد شكرا لك أنت على المشاركة likulli min haadin xaw min nii lañuy tegaloo xaw min haadin soo commencé su su rawante suñ la suñ la moyen yaa ko def parce que jàngal nañ la ko dégg ngeen waxab la xarfil xalqi ah lu mu wax ah rakib dañuy tegaloo dégg ak ba ay waxa عين جيد عين مثال في هذا ها لا غو... لا خوف عليهم جيد لا خوف عليهم لا خوف كما waxoon nañ ne wa damun yu'raf waawun ah kada amaamuhu aw fawqa fawqa la ñuy jàpp laa fawqun laa xaw xawfun rakkabtahuma da ngeen ko bu baax kon solo lim dugalante ko dañ lay moyen boobu bu bu euh, suñ bàkki solo ñëwee ah xam nga ñoom dañoo soxor dañuy moyen rek laa xawfun alayhim aywa ci concours bi ayin aywa ba'da hada eh jigéen ñi kenn rek laa fi gis muy musharaka ayin ayin ayin ante ajrun ghayn jayid ghayn laa basa ajrun ghayru mamnun ajrun xayru mamnun ajrun xayru aywa aywa xataa nantahi ah xaa jay laa basa xaa la wax léegi alimun aliman xakima aliman xakima aywa xaa xaa aliman xabira oh ah. aliman su ngeen amoon tableau bu baax ak trait mën na mu kii la ñu bind mais nag aliman xaju fi da ngeen ñaari masque yi aliman xabira kon wa qabla harfi xalqi ah lu ci topp rakib taxuma na ngi leen tegale waaye nag wa qabla ma siwaahu lu ci topp arbaa taxuma mu ne nag leneen loo gis ñaari masque yow mën a fekk te benn ci juróom yi topp ci soo di maas dañuy toppante da lool loolu ah voilà adaban shadida jox benn misaal jayid adaban shadida adaban dañuy rawante da ngeen que lan xam lu waral léegi nag bu li ñu woyee ji lu waral ñu ne ñaari bu dee yii dañoo war a tegaloo fan lañ ko teg dañ ne boo seetloo fii euh, tanwin bi ak araf yi dañoo sore fu ñuy jógee fu ñu seetloo ah fi ñuy jógee araf yi ak kii tanwin dañoo soree loolu moo tax dañoo sequt dara dañoo soree loolu moo tax ñu ne kon kon kon nañuy tegaloo bu dul loolu boo seetloo ixfa lay nekk seetlu ngeen ko wala mu nekk maanaam euh, maqlub lu mel ni bu amoon baax wala lan wala mu nekk maanaam idgham hmm? lu mel ne odam xudam min rabbihim boo xoolee euh, tanwin bi ak kii bi sorewul ak miim bi wala yooyu dana ñëw ci kanam mais daal waxab la xarifi xaf yi rek taxuma lu ci topp lan moo ci teg ah waxab ah waxab la ma siwaahu bu jiitoo lu dul juróom benn araf yii adda taw ma ñaari masque yi nañ tegaloo da ngeen nañ toppante nañ toppante ñaari masque yi nañ toppante waaye kan yaxul ka l'histoire fi hada ayo voilà lu tax mu rëy walla parce que euh, man dama ko def masalan man naa ngi bindal koo xam ne bi masalan xafsa lay jàng mais bu doonoon ñun nga xam ne riwaaya warsh suba dañ koy naqlu war da ko jàng ci kanam mais su boobaa itam du sensé dara ci masque bi du ci sensé dara da ngeen du ci sensé dara da du ci sensé dara. fan waaw. daa jëm nan. voilà xoola xoola xoola léegi dafa am lu ñuy wax xoola dañ ne lal mooy masque gi lan mooy tanwin gi hunaaka xilaaf fi hada lan mooy masque gi lan mooy tanwin gi looy tontu dañu ne bi bi bi bi jiitu mooy masque gi xilaaf ba ñu waxoon soo ca doon dellu dangay def kii fii ca lañ doon wax bu doon kii bu doon alif ca xilaaf bu njëkk ba da teg kii fii tabshor xam ra telloo euh, ngeen ma ci li ñuy wooyee njàngale moo xam ne nag lii moom dama ko gëj a def lii école la may fàttali da ngeen lii lañu wooyee maska gis nga bii ci topp tanwin la tudd da ngeen ko bu baax bi ci topp tanwin la tudd ñu ne ñu ne bi bi bi féete suuf mooy masque bi féete kaw moom mooy tanwin bi ñu ne la nag bu fekkee bi xam la maanaam xarfa xarfa moo ci topp nañ tegaloo lu leneen la ci topp lu loolu ñoom ñaar nañ toppante nañ toppante na kii bi jiitu kii topp ci lan mooy masque bi hmm? ba ci suuf voilà léegi yow kon da def nii anyway moom buñ tolloo daal nañ rawanti tuuti ñu xam ne lii daco dafa nekk maanaam max fii wala mu dafa nekk mu du xam wala dafa nekk dafa nekk maanaam maqlub da ngeen hmm. euh, waxtu xadin taxa taxa so al fiya da xablan wasin hmm. aha ah da bëgg mu jëm nii maa fi shay léegi li ngeen bëgg mooy comme léegi kon da ngay ñëw nii parce que lañ la waxoon bu ko fàtte ñaari maska du dépassé du dépassé de dégg comme nii dégg ngeen dégg ngeen anyway bàyyil xel li moom alif bi moom bu ko dépassé soo ko dépassé buñ la corrigé yaa ko teg si bopp dégg ngeen voilà parce que règle lañ la jàngaloon toujours ca ngay delluwaat du sens benn yoon kon hada ma tayassara lana fi hada al-yawm nu wasil salaamaaleykum